merci beaucoup Gloria mi ñuy gunge saa su nekk ci euh, matinal bi alors euh, niñ leen ko doon waxee sànq tey dañuy ànd ak Abdoulaye Diop ci benn reportage laata loolu sax ma nuyu ko Abdoulaye maa ngi lay nuyu mbaa yaa ngi ci jàmm bu baax. ñu ngi sant bu baax ñu ngi mhm. lay fay soxna naata di nuyu ñi nga xam ne ñoom lañu fekk ci plateau bi ak euh, ñi ñuy seetaan yëpp. merci beaucoup Abdoulaye ci kanam tuuti dinañ dellusiwaat ci yow en attendant ñu dem xool sa reportage bi muy ay soxna ak ay xale yoo xamante ne dañ leen jëlee woon ci ancienne piste bi jamono ji nag ñoom amatuñu fu ñu dëkk ñenn ca ñoom dañoo dem ca buntu benn jumaa bu nekk ca Sacré Cœur 3 ñi dañuy fóot ngir mën a am lu ñu dundee ña ca des ñoom dañuy yalwaan jàpp nañu ni location loolu moom moo am sax dafa cher ba mënuñoo dem fay am fu ñu dëkk mu mel ni jamono ji seenu dundu seenu àdduna ci mbedd bi képp la yam Abdoulaye Diop dem na daje ak ñoom ànd ci ak Thierno Laurent Mendy reportage. ñi ngi ci bayaalu jumaa bu Mohamed III bu nekk ci Sacré Cœur fii nag 22 heures di jot ay jigéen rekk ñoo fi nekk fas yéene fanaan fii ak seeni njaboot xalaatuñu seen kaaraange wala sax seddaay bi nga xam ni ci lañu nekk bi ñu ñëwee fii nag léegi mu mat ñetti weer ginnaaw ba ñu leen jëlee fa ñu nekkoon di ancienne piste léegi nag ñi ngi fii waaye nee nañu gënalu leen ñàkk pexe rekk moo tax ñuy fanaan fii jëm nañ amal ak ñoom waxtaan bëgguñoo feeñ ci caméra bi waaye nettali nañ naka la ñuy dundee fii. tur bi naka la. Khady Sène. Khady Sène. waaw Khady foo jógee. man maa ngi jóge Bambey. Bambey. waaw. Euh, kañ nga ñëw Dakar. man Dakar yàgg naa fi de. Hmm. waaw mais yàgg fi ba boobu ba léegi moom maa ngi ci ancien piste bi. Hmm. biñ ko dajee laa ñëw fii ak samay njaboot ak samay seex yi nga xam ne moom laa yaakaar may tëdd fii depuis presque léegi mu 3 mois ñu ngi taxaw fii di tëdd. Hmm. xam nga ne lii moom gënaluñu tamen bu ñu tëddee fii ku ñu gis tamit doo ñu naw te xam nga ne rek njaboot a tax boo ñibbee village du amoo ci loo jàpp xam nga ne toroxtaange rek mooy ñëw ñu ñaan rek ku ñu ci mën a dimbali rek jàppale ñu ñu jóge fii rek mu defal ñu ko waaw. kon es euh, euh, ci lan nga yëngu. instant yi moom ci samay seex yi laa yëngu damay yelwaan waaw. kon ci yelwaan bi rek nga mën a dundee. waaw ci yelwaan bi moom laa mën a dundee moom laa yaakaar tamit. Mhm. parce que sama ñaari seex laa yore mënumaa liggéey ak ñoom waaw. sa borom kër mi ngi foofu wala. sama boroom kër mu ngi fi. ndax xam nga ne moom doole. waaw loolu moo tax. fii ñu fiy dund am na ay góor ñu fiy dund wala. fii moom parce que ay jigéen kese lañu ñu ay jigéen ñu ñoo fi toog waaw. ñu fi nekk ñëpp ancienne piste bi ngeen nekkoon. waa ñu fi nekk moom fii yëpp ancienne piste bi la ñu dëkkoon waaw. est am na ñu leen fii fekk di leen indil ndimbal. ah waaw dañuy lekk moom lekk bi moom day ñëw daal lekk moom kese la ñu gis moom ndax leneen ñëwagul waaw. kon ñoom da ngeen fas nekk fii ba kañ. ah bu ñu jàppale ci moom suñu sañoon sax jóge fi suba suba suñu jàppalee moom suñu sañoon sax jóge fi suba suba parce que tëdd fii moom ak say doom ngelaw bi di la rey moom seddaay bi di la rey instant yi moom xam nga ne neexut kenn moom. Joor Tine. Joor Tine. Tine fan nga bàyyee ko. Bambey. Bambey. waaw kañ nga ñëw Dakar. man bi ñuy bu ñu génnee ci nawet bi ñetti weer laa fi am. waa benn weer laa fi am ñu toj piste bi. waaw léegi nag man amatuma fu ma nekk. ñoo ngi nii tëdd fii. jooytu nañu ba sonn amuñu lu ñu feyee néegu lu yaas léegi nag ñu ngi fii fii ñu tëdd nii gënaluñu ah waaye xoola di foraatu yor xale yu ndaw yi yow dangay dem ba yoratoo borom kër di foraatu di def ci say njaboot. wala yow nga yor ay seex wala ngay jigéen sa borom kër amul doole nga ñëw fii di foraatu léegi ñu toj nañ piste bi ñoo ngi fii amatuñu fenn fu ñu toog léegi nag boo ñibbee doo am ci loo jàpp ñu ngi fii di foraatu léegi nag kuñ ci dimbale ñu xam ne dimbale nañu buñ fi yëkkatee nag ñu xam nu ñu def ñu dem rek te di jàpp suñu njàmbur ñàkk pexe. lan nga daan liggéey ba nga nekkee ci piste bi fóot. tam ngay def ba léegi. moom laay def ba léegi. waaw dangay toog fii yenn saa nga toog fi lu mot ñetti fan ñeenti fan doo fóot waaw. léegi ana fan ngeen di jëlee lu ngeen mën a dundee. ah xanaa di foraatu rek loo foraatu rek def ci say njaboot kese. yow kan nga nekk fii ci sa wàllu famille. man sama ñii tëdd sama xale yu ndaw nekkuma kenn. ñaata xale nga fi nekk. ñii ah. ñaata xale nga fi nekkal. ñaa ngi fee ñeenti xale waaw. ñoom ñëpp yaa leen war a toppatoo. billaay yor seen seen rafetaay maa yor seen lépp. am man dëkk. Bambey la. man Astou Fall ñëw Dakar. am naa fi ñaari at de. ah instant yi ci AC piste bi la ñu dëkkoon. mais instant yi dañoo nekk ci problème yoo xam ne bañ ko tojee ba léegi. ñu amuñu saa yi ñoo ngi nii ci biti ak sunu seex yi waaw fi la ñuy fanaan fi la ñuy yendu suñu xëyee ñu dem liggéey léegi su ngoon jotee ñu wàcc ñëw toog fii fi la ñuy fanaan saa yi nag dañoo am problème ndax saa yi sedd bii nii moo doon sunu problème ak seex yi léegi nag ut nañoo ut néeg ba sonn amuñu ko léegi instant yi nag sunu programme yëpp ci piste bi la nekkoon parce que sunu bagage yi yëpp sax mi ngi ci piste bi moom léegi ak sunu matériel bagage seex yi yëpp mi ngi foofu léegi nag instant yi loolu mooy sunu problème moom waa léegi nag fii moom ku fi romb ne ñun duñu sénégalais ñun sénégalais pire lañ waaw sunuy programme rek moo ñu denc fii ak xam nga jigéen fu mu nekk mi ngi yëngatu ci dara ay affaire u natt ak affaire yooyu ñu fi denc ñii teggi nañ ñii teggi lan ngeen bàyyi ci wàllu alal ci ancienne piste bi. instant yii sunuy matériel mi ngi foofu parce que man sama kayitu doom yëpp a ngi foofu moom ak sama dentité samay problème yëpp ñoo ngi foofu moom wax dëgg léegi nag suñu sañoon suñu amee ku ñu dimbale moo dimbale ñu. ñaata njaboot nga fi amee. fii nii yore naa fi ñeenti xale moom waaw fii. ñu gis ni tamit fii yéen ay jigéen rek yéen a fi nekk. waaw fii waaw. ay jigéen rek ñoo fi nekk. du am problème sécurité wala. non non non non amul déedéet. sedd bi nan ngeen koy gérer ak jamono bi ñëpp a ngi euh, jéem a fatu di xalaat naan sedd bi yéen ngeen nekk nii euh, ci à l'air libre nii dara tiimu leen. daay am problème rek. sant yi moom ci problème la nekk ndax xam nga sedd bi instant yi ak njaboot gu sew gi wax dëgg ci problème lañu nekk. ak xam nga rek seex yu ndaw yii moom instant yii foo leen di fanaanloo ci biti nii ñoom am nañu problème waaw. lan ngay liggéey fii. ñun dañuy xëy yelwaani mocce bi dañuy fobeere lu mën nit mën a taqale daal nga taqale ko waaw. ñu ñu waa Sacré Cœur nag ñoo ngi leen di gërëm moom parce que bañ fi nekkee ba léegi ñun waxuñu ñu dara ci affaire jumaa ji te su leen neexoon ñu ne ñun duñu tëdd ci jumaa ji wax dëgg ñoo leen di gërëm bu baax surtout waa jumaa ji ñoom ñi nga xam ni ñu ngi fanaan fii ndimbal rek la ñuy xaar ci nguur gi wala keneen ki nga xam ni mën na leen a jële fii yóbbu leen feneen fuñ mën a amee seen dëkkuwaay waaye tamit mën fa am liggéey ba mën a teral seen njaboot gi merci beaucoup euh, Abdoulaye Diop Abdoulaye alors gis nañ ko reportage bi daanaka guddi nga ko tourné euh, xëy na mooy misaal li nga dooree maanaam ñoom bëgguñu woon ñu xàmmee leen mais ñëw ba nga demee ci ban situation nga leen fekk déjà euh, yaa ngi wax ak soxna yi ñu ngi dégg tamit seen i doom xëy na loolu moom moo gën a marqué sax nit ñi le fait que ñu am seen i njaboot te ñu nekk ci mbedd bi ay ñu ngi naan depuis trois mois n'est-ce ñu ngi fanaan foofu noonu mm. waaw comme ñoom dañuy jóge woon ancienne piste nga xam ni ci octobre bi lañ leen fa jëlee mm. euh, ñu bëri tas nañ bañ ñëwee sax euh, am na bërëb yu ñu jàppoon nii dina am ñu ñu fa fekk ñu jóge ancienne piste mais bërëb yu bëri fekkuñu fa ñi nga xam ne ñoom la yaakaaroon ñii ne nañ dem nañ ci yeneen gox biñ ñëwee nag ci ci jumaa boobu xëy na ñi naan Mouhamed ñi naan Aboubacry bi nga xam ne moom moo nekk boo demee ba euh, Sacré Cœur mm-hmm. doo waaye mel ni kuy jëm boulangerie jaune mm-hmm. foofu lañ nekkee mm-hmm. donc euh, mu nekk ay jigéen kese ñoom ñoo fa nekk ñu jógee ci ci ancienne piste nga xam ni comme ni mu ko waxee li ñuy dundee mooy yalwaan wala euh, ñii di fóot yenn xeetu liggéey li nga xam ni mais bu ñu fay dem presque vingt deux heures mi ngi jot parce que vingt deux heures fekk nañu fa heure boobu ñoom lañ doon ut li ñu yalwaanee ba commencé di di reer ay xale yu ndaw comme ni ñu ko gisee ñoom ñoo fa ëpp sax xale yi ñoom ñoo fa ëpp euh, leneen li ay une dizaine wala quinzaine de femmes ñoom ñoo fa nekk. Mhm. ku nekk di nga am aussi sa njaboot yi nga xam ne ñoom nga fay nekkal gis nañ matelas yi nga xam ne moom la nekk à mhm. l'air libre. Mhm. ci espace bi nga xam ne mosquée bi moom moo ko moom. donc ñoom foofu rek la ñuy la ñuy nekk euh, amuñu liggéey amuñu foo xam ni peut-être moom la ñuy mën a daanee seen doole pour euh, mun a am fu ñu sukkandiku mais aussi amuñu fu ñu mën a nekk ndaxte wax nañ que ni dinañ bëgg am location. xam nañ que ni dafa dafa cher moom moo tax ñoom ñu nekk foofu noonu nag. ñu ci bëri aussi li ñu wax moom mooy Bambey la ñu jógee. parce que ñu ñu laaj ñëpp ñoom Bambey la ñu jógee. ñoom ñëpp daanaka ñu la laajte ñëpp Bambey. Mhm. Mm. te mu ñoom mënuñu delluwaat fi ñu ne nañ bëgguñu delluwaat foofu noonu. li ñuy xalaat rek mooy ñu ñu des Dakar xam naa dina dina metti na kër Diouf mooy suñu correspondant foofu ca Bambey sax xam naa certainement du ñàkk tamit dina xool yan euh, peut-être euh, lan moo tax ñoom ñu jóge foofu ba ba noppi ne mënuñu faa euh, jóge laata Cheikh di poser question am ndax amuñu jafe-jafe ak jumaa bi ci boppam mhm. wala ñoom li ñu li ñu wax esplanade bi la ñuy nekk foofu mooy kenn bon waa Sacré-Cœur sax la ñu wax mhm. ñëpp ñoom ñi ngi leen di jàppale ñi ngi leen di ñi ngi leen di jàppale ci lekk bi waa jumaa ji aussi tamit waxaguñ leen dara bàyyi nañ leen foofu par contre ci beneen côté bi am na ñoo xam ne ñi ngi fa nekk xam naa ay trois la ñuy doon ñoom nee nañ bokkuñu woon ñu jógee ci ancienne piste eh, mais ñoom aussi feneen la ñuy nekk ñoom dañu beru ci beneen côté bi am na benn pas aussi boo xam ne moom moo fa nekk donc may nañ leen espace boobu noonu mais ba kañ. Hmm. la ñuy continuer di dund foofu. d'accord dama bëggoon taxaw rek ci lu soxal seen wàllu kaaraange ak fii jamono toll ndax ñoom. Euh, euh, saa su ne ñu ngi xalaat loolu. Mhm. bon laaj nañ leen question boobu noonu maire bi ñu mujjee laaj nee nañ amuñu problème insécurité peut-être xëy na dajale guñu problème insécurité mais ndax ci kanam dina dinañ ko dajeel parce que aussi tamit woorul ñoom ñu xam ni ay soxna kese lañ ci ci mbedd bi ci espace boobu nga xam ni tali bi dafa traversé. Mm, donc te te mhm. dafay guddi aussi bu nekkee foofu noonu amul lampe peut-être boo xam ne. am benn éclairage bi gis nañ ko ci image yi euh, donc problème insécurité bu continuer aussi mën na nekk foofu noonu. surtout ci mm-hmm. xale yi aussi te bari nañ ci wàllu déguerpissement yi. nag nan lay demee exactement parce que maay dégg sax benn femme mu naan moom ay bagages am ma nga fa. ay carte d'identité mag ay kayitu doomam mag. lu nu mel comment ça s'organise mm. alors euh, pro programme boobu noonu dafa nekk programme zéro bidonville nga xam ni président moom moo ko moom moo ko woote donc ci la euh, ministère de l'urbanisme nga xam ne moom moo chargé wu travail bi am benn direction cadre de vie nga xam ne moom moo géré liggéey boobu ci biir direction boobu noonu am na yeneen quatre directions yu fa nekk bi nga xam ne nag mooy direction euh, de lutte contre les encombrements moom mooy gérer wàllu li nga xam ne moom mooy bidonville yi nekk ci ci Ndakaaru ñu génne leen fi gis nañ fi cité karting euh, cité imbécile mm. ñu ñëw aussi cité bi nga xam ne moom mooy euh, ancienne piste ñu dëgër piir leen foofu noonu parce que dañu jàpp que ni foofu noonu dafa am population yu nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ci côté boobu dañu doon def ay plainte mm-hmm. wax que fii nii xëy na kaaraange gi xam ne moom ma fi war a am amu fii aussi tamit pollution bi nga xam ne daf fi am parce que ay mécaniciens lu met au nombre de 400 ci li ñu euh, recense recensé moom moo fa nekkoon ñoom ñu jàpp que ni kat loolu xëy na euh, mënuñu dund ak ak moom loolu moo taxoon ñoom ñu def ay plante ci gouvernement bi aussi teg euh, li nga xam ne moom mooy direction boobu noonu ñu fexe ba mm-hmm. cité yu mel noonu yëpp ñu dindi leen fii commencé nag tabax euh, ay cités yu nga xam ni. comme moom mooy exemple cité Baraka aussi. voilà cité imbécile demoon nañ fa. je en contact avec euh, hier rek euh, wax waxtaan na ak ñoom. Mhm. li ñu wax ñoom ñooy que ni génnee nañ leen foofu noonu lu mat ay 1500 ñi ni sax ëpp nañ peut ba ba 2000 ci ñoom li ñu wax. Mhm. defoon nañ ay recensement wax matériel yi nga xam ne moom moom lañ ñàkk foofu noonu bëri na defoon nañ benn collectif nee nañ dem nañ ci gouvernement wala bon autorité yi mhm. mais ba léegi. bon dañ ne dañu nekkoon ci bërëb bi ñu leen fekkoon mais dañ leen fa jógeele parce que population yi fa dëkk dem nañ ba benn instant tamit mënatuñu supporter di leen bàyyi foofu noonu parce que mën na jur insécurité bu continuer peut-être li ñu doon ragal ci cité imbécile wala ñoom cité Dar Salaam sax lañ koy wooyee mën na amaat fi nga xam ne moom mooy foofu mais ñoom aussi ginnaaw loolu euh, tas nañ léegi ndax nee nañ amatuñ mënuñu toogati foofu mm. waaye nee nañ jéem nañu topp ci nguur gi pour am li nga xam ne moom lañ leen digoon ba léegi Eh, mais jotuñu cee jot. mais mm-hmm. beneen laaj bi tam Abdoulaye Diop mooy euh, seen borom kër yi animé. Mm-hmm. fan mm-hmm. la ñu nekk. ñoom koo ci laaj peut-être sa borom kër du ci du ci bëgg a wax ba danaan la rek mi ngi ci liggéey bi wala wala mi ngi fii am na ñoo xam ne dinañ bàyyi seen borom kër ci dëkk ba am na ñoo xam ne aussi dinañ nekk ak seen borom kër. donc euh, moom moo. parce que euh, dama ci dégg ci ñenn ñoo xam ne nee nañu bëgg nañu liggéey mais bu ñu amuñu ko ñu dénk seen doom yi. Mhm. dafa am yenn femmes yoo xam ne yenn système yi ñuy def mooy euh, seen borom kër yi dañuy am ay ñaari bu ñëwee Dakar pendant un an liggéey beneen soxna bi mooy nekk ci village ba téye doom yi. Mhm. bu ñu demaatee cycle bi après day continuer waat. Mhm. donc on se demande bu fekkente ni ñoom soxna yi ñu ngi ci mbedd bi ak seen i doom y a forcément des maris derrière. ani seen borom kër yi fan la ñu nekk c'est ça. Ah, xam naa peut-être sutura tamit bi ñuy wax Sénégal moom moo tax nag lu ñu mhm. bëgg mhm. wax seen seen seen borom kër yi mhm. ci yan anam lañ leen di bàyyee wala dara ci biñ demee cité imbécile ak euh, cité bii nii yëpp euh, wala ñi fekk fii ñu déggee fii ci ancienne piste boo leen laajee question boobu duñ ci bëgg a xóotal soit dañ naan la mm. sama borom kër mi ngi fi rek wala ñeneen ñi aussi dañ naan la sama borom kër mi ngi dëkk ba xëy na peut-être mën na nekk foofu noonu mu bàyyi leen ñoom ñu ñoom ñu ñëw fii nii mais mm. ñoom duñ ci bëgg a xuus ba mu yaatu mm. d'accord oui dernier oui vas-y euh, benn mbir rek parce que d'habitude ñi nga ne dañ leen di jëlee ci yi yi nekk euh, bu ñu jugee foofu daanaka bu ñu tasee donc guddi gi euh, koñ yi nga xam ne ñoom la ñu gën a jege fa la ñuy dugg par exemple ñi nga xam ne euh, jëlee nañu leen ci ancien piste ancienne mm-hmm. piste bi ñu leen jëlee foofu guddi gi wakaam d'habitude cas d'agression yi da doon da doon da doon yokk parce que dañ doon mm. def lim bu takku donc di di di di agressé nit ñi donc pour interpeller ñi nga xam ne ñoom ñoo di autorités yi bu ñu leen jëlee ci barab yi ñu nekk wàllu sécurité bi ci euh, gox yi nga xam ne euh, ñoom ñoo fasanti ko ak fa ñu nekkoon également ñu ci euh, bàyyi xel bu baax a baax ndax 20 heures 21 heures nit ñi dañ daan tëj seen ay buntu ndax dañ leen daan fëgg donc di leen agressé fii ci Wakaam rawatina Cité Batran. Hmm. merci merci beaucoup cher merci beaucoup Abdoulaye Diop. merci ci ñu egsi ci ponk bu mujj ci info matin muy suñu gan ñu dalal ko.